car la vérité mène au bien et le bien mène au paradis mais je me suis dit que mais man Sénégal demande ma est-ce que gëm sommes ñaari wax parce que je me li mu est-ce que nous pouvons koy wax dëgg te si nous sommes loolu nous ñi ko nous di ànd ak di ak est-ce que nous sommes ñaari wax yi c'est un problème parce que terroriser bi terroriser C'est ci coronavirus bi interdire les rassemblements les rassemblements religieux les rassemblements islamiques les rassemblements traditionnels rassemblement yépp ñu interdire ko daanaka interdire nañu sax jaamu yàlla daanaka parce que kenn dootul dem juma kenn dootul dem jàkka demoon nañ sax bay comploter pour jéem ñu tere woor rassemblement yi fi nekkoon euh, ci wàllu diine ji nga xam ne si la ñi di profito pour gën a renforcer seen capacité ci seen seen seen seen diine et cetera et cetera ñu fexe ba interdire ko. ba màggal gii nii rek manigance yi ñu ci def rek ak désinformation yi ñu ci joxe rek pour annuler ko pour déstabiliser nit ñi ba ñaari raaka yi ñu doon def ca ndar et cetera et cetera mais Macky Sall mu jóg ni day def tournée économique xaw ma il est dans le Saloum actuellement di dajale des milliers de personnes di def xaw ma campagne lay def xaw ma diagnostic lay def xaw ma lu muy def. te pourtant mu ngi toujours ci discours bi mu doon wax ni ci contexte coronavirus bi mais li kan moo koy wax dëgg ni ko li ngay def arrêté ko wala boog nga bàyyi nit ñi ñu dund seen diine ñu dem màggali seen màggal ñu dem def ji seen ay gàmm mais ñi jege Macky Sall ñi nekk ay ministre ñi nekk ay DG ñi nekk ay lu ñu mën a doon ci wetam mais lan moo tax nanguwuñ koo wax dëgg ni ko li ngay def. ça répond pas à l'aspiration du peuple sénégalais Macky Sall dellu ginnaaw vraiment ñun am nañ gàcce quoi vraiment fal bi ñu la fal nii vraiment réccu nañ ko te tooñ bi ñu tooñ di nga ko layoo ak ñun ko ak suñu kanamu borom subhanahu wa taala maa ngi leen di jaajëfal